daan ñi defee ne nag loolu bunt la soow soow soow nangam nangam loo xam ci sëriñ bu jënd oto ñu ni naan ñu naan jàkka ji yeggagul ñu naan liñ doon laaj moom la jënde oto li ñuy laaj dafa mat dara te dajeegul sax fa indeeguñ ko sax bañ koy jënde oto mën a fen sont des menteurs sont des menteurs te itam mi journalisme mu dëgg la mais mensonge bokk ci nag Mansour dafa ñaaw gor du fen parce que yonent bi dañ ko ne afa yakunu muminu jabaanan qaala naam afa yakunu baxilan qaala naam afa yakunu kadaban qaala laa jullit dana ragal mu ni dana ragal kay jullit dana nay mu ni jullit dana nay kay ñu ne ko jullit dana fen mu ni déedéet jullit du fen ku fen rek nekkatu julit xam jullit du fen da ngay wax lu la wóor da ngay wax lu la et puis am na lu ñu dul nangu nag lu ñu dul nangu mooy fay suñu kilifa nag te tey mooy image de marque confrère bi mooy image yu marque kër Cheikh Al Hadji Malick parce que moo fi mag moo fi mag te itam li Moustapha wax dëgg la am na xale yoo xam ne tey ku leen dégg lu ci sa kilifa doo fonk sa kilifa ndax ko saaga sa kilifa koo joxati ndigal dafa war a ree su ko defee ñun du nangu ko fay suñu kilifa jamais ba tax na ko nag loolu rek laa leen ci bëggoon a tegal ci daje bi ngeen yóbbaale ko yal na yàlla ànd ak yéen fu yéen mën a jëm bala ngeen fee dellu si déwénit ci seen barke maam ju baax ji tëdd yal na ngeen ami place ñi amul jëkkër yal nañu am ay jëkkër yal na ngeen am jëkkër góor ñi am jabar ñi bëgg a génn aw am aw yoon ba génn ci barke Cheikh Al Hadj ak barke njabootam gu tëdd gi tëdd ku fi ñëw lépp loo amoon ci diis diis boo demee yal na ko yàlla woyofal ku ci feebar yal na nga wér ku ci am njàqare yal na ko yàlla wuññi euh, gannaaw loolu ñu ñaan chauffeur yi ngeen dox ndànk rekk ndox ndànk du tee àgg fa nga jëm te xam ni ay njabootu lislaam ngeen yar njabootu tariqa Cheikh Ahmed Tidiane yi ngeen yar eh, su ko defee dañu ñaan ñu di leen yëgal gàmmu daayiratul ahbaab bu mekkee Serigne Modou Fall ca Paaleen di doomu Serigne Cheikh Fall mi ngi koy def le 22 mars kon day daje samedi bii di ñëw incha allah yal na ko yàlla mottali su ko defee loolu rek lañu amoon lu jox seen pap Maodo si mu sànni leen ñaari kàddu ñaanal leen waaw bu leen kenn dem seen añ yëpp pare na togg nañ ko ba mu baax te bu leen ko fi wacci waay toolee ñu indi leen ko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 sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara waaw ma ne dañu wax ne ngeen bokk déglu sëriñ Maodo si doom maam alxaaji Abdulaziz Dabaax fas yéene jël kàddu ginnaaw bi sëriñ bi pare su pare sëriñ bi dooga na ñépp dal ci déglu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ziyaare tëbbu ak ziyaare barkeelu di ko bokk di seq di ca ànd ak mbooleem sa njaboot gi teew fii tey ñun suñu wax du ci gudd lu dul nuyu la si ziyaare la dolli ñaan yàlla yàlla yàggal la ci kanamu njaboot gi ak sa xabramaam bi لحضرة الشيخ الحاج Malick radiyallahu taala anhu sëriñ bi dalalati nga xelu njaboot amul dara loo waxtaane tey ci tariqa bi ci asraar yi ci ci ci ci tur yi adkaar yi ak nan lañ cay soppandikoo nan lañ cay jëfe wala jëfandikoo lu dul appliqué nga ko dund nga ko ñëpp teg ci bët li biire jëf nga ko njaboot gi sës ci yow ashiratuka al aqrabin ittalaw alay te loolu nag moo daq ci kilifa li ngay wax lépp nga jëf ko nekk ci exemple nekk ci modèle amuloo dara loo santaane wala loo feddali walla loo yeesal ci kanamu xadra bii di sa xadra maam di sa xadra baay lu dul jëfe nga ko te ba léegi tekkiwoo sa takkaay si ñu ngi lay sant ci wàll woowu di la ñaanal يالا دولي لا يغال سي حضره مام بي خادم الحضره الاحمديه المحمديه التجانيه المالكيه الصديقيه الدباغيه سميكم وعمكم أه، دي سانت ايتام خالي ميساج بي تبارك الله ليب ليرنا سي بوب نداوي كو ام كليفه غومات كليفه دارا ديسيتو lu dul sant yàlla te topp joxañam défi yi nga wax yépp ci dëgg-dëgg si nit ñaa koy dund jamono ngi koy dund waaye li ma wóor moo dina jeunes yi masse bile luy courage luy njàmbaar gu gu sagesse lal ak xàmmee ak ràññee ñàkk nga leen ko ba tax na ñoom itam li ñu leen di ñaanal yàlla moo di yàlla umb umbal leen aar leen sàmm leen ba fi nga bëgg ñu yegg te yaa cay njiit la ñu yegg fa ànd ak yow tabaarakallaahu sayiduna muusa wa sayiduna alxadir seen ànd ba rëy na waaye benn rek laa ciy jël njaal benn ga mooy li leen lié ak Sidi Abdul Aziz al ibn wala sax mooy li ñu lié ak moom hal attabiuka ala an tuallimani waxu ko maa alimta Moussa neewul xadir ndax du ma ànd ak yow nga xamal ma li nga xam lépp dafa ko ne mimma ullimta ci lenn ci li la yàlla baaxe yekkewal la ko xamal la ko wax ja mënoon na fa yem ndax kenn ku nekk xam na alxadir du jàngale mukk lu jàdd yoon waaye alxasru wal qaydu wa tajsid wa taxdid dafa di dafay baax dañu ne tawxida fi nekk wa taxdid wa tajrid tawxidu lillahi subhanahu wa taala allahu yuwaxadu wala yujarradu لأن جميع صفات الكمال تخصه وحده لا تحد في الأمكنة والأزمنة ولا يتجسد الله في الأشياء والأشخاص موتخ موسى ديب يوننت بوكتي أول عزم نيكو هل أتبعك على أن تعلمني منون نيم فوا منكو مما علمت ميم وأي منكو رشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كم منا من يدعي الرشد والإرشاد ولم يهتدي بعد إلى إلى تلك الذي يدعو الناس إليه سوكو دفي كون سيرين بي ني بيك دي كونتان سيرين بي تبارك الله يالا يالا نلا جيمين موي واي لا واي كات با واخ اذا الناس قالوا من فتن xiltu annani uniitu ak lam aksal walam ataballadi woykat bi nee na fu ñu ne jàmbaar ma taxaw geesu ne ku ko wax ndax man yëg naa ne man daal jàmbaar la fu ñu ku ñu ne ku baax te njàm te jàmbaar nga fitlal ko waaye ak xellu ma geesu ne ana ko ma woo ndax yëg naa ne njàmbaar ak fit ak xelloog mbaax romb ma jëm fenn tabarakallah si allahumma la addu ni ko sa turoon daan waxe roy nekk nga model ci walu wow ah tabarakallah buñu nekké kër dan daan taxaw daan dem ci muaskar abi bakr as siddiq amna ben benn buñu dan woy ci muaskar ba ala sana ala sana nahnu ash shabab sanaltaqi min kulli bab bil azmi xattam na siaab bil amni xaqaq na al amal wa kulluna muhammadu ahadun ahad fardun samad ma misluhu kuf kuf an ahad loolu mooy seen emblème mooy seen shiaar ñu ngi leen di bége ñu ngi kontaan ci yéen di leen ñaanal yàlla yàlla dolli leen sàmm yàlla dolli leen aar sëriñ bi am na lu mu wax léegi bëgguma ko woon ndopp yaa symbolisé al taharatu wal iffatu wal istiqaama loolu moom waa xadra bi yëpp jowee nañ la ko si sell mbaax fegu sàmm ñëpp ñëpp ñëpp seedeel nañ la ko mag ñeg ndaw ñi ñi ciy góor ak ñi ciy jigéen moo tax mas naa dégg sa benn bànn mat na vingt ans wala mu jege ko nga ne léeg-léeg romb ay nit ñu naan day fo ñun taluñu fo taluñu noos li nga wax ci sa jeunesse nga baal ma sëriñ bi waruma ko wax waaye maa ci fekk dara yow Maodo Ali ñu daan ko wax Kaana Maodo Ñang Tañar muy sëriñ Mbay Sàll Grand Bic Mbay Sill rahmatullahi suñu mag ju baax ji fi jóge bu yàggul Chérif Ahmed Haydara équipe ba yéen a ko yoroon tabarakallahu seetaan nañ leen ba tàyyi fii ak ñoom Karim Diop boobu gën na nekk jeune li ma yox ay mille neuf cent cinquante deux la cinquante trois si waxtaan naa ko Moustapha bërki dem bi ñu ñëwee di ma yëgal bés bi man leen sëñ Abdou dañu dañu dañu gémmi rek gis ko góor gi tab ko ci boppam rek Abdou da daan ñett ñetti escalier di sol xaftaanu gabardine ak dara yu rafet mu nga post ba mu nga ca daayira ya ma nga ca tool yi góor gi lu ñu mën a ana Abdou kon boog si la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxon ne hal yakdhibu ar-ra'id ahlahu fa ana naam fa ana al uryan uryaanu nadir الرسول صلى الله عليه وسلم فوجئ ذات يوم بالرسالة في حين في وقت لم يكن يتوقعها فيه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظاهرا للكافرين أمن لنجد سنيل وإلا يننت بوخن ودع الناس إلى الصفا نلن أنا أنا رسول الله إليكم جميعا لجب جب ci يسفانو yu من إن الرائد لا يكذب أهله وأنا النذير العليان sëriñ bi maqaam boobu nga taxawee yal na yàlla dolli la wér yal na yàlla dolli la kattan sëriñ bi ñëpp la sopp tabaarakallaahu ñëpp la dama la xam bëgguloo sax ku xuus ci sa wàll noonu ndax sa yiw ak sa mbaax waaye li sa turoon daan wax allahuma la abdur mission nga chargé ti xale yi ñu nga ca yoon wa waaye da nga leen encouragé na leen sax leen ci défi yaa ngi fi yéen a war a relever défi yépp tabaarakallaahu waaye yëg naa ne incha allahu taala li man li ma jàpp ci yéen ci pas-pas jàpp ko ci yéen ci ràññee ak xàmmee ak xam nu doxu jamono fu fu tànku jamono toll ak doxu jamono ngeen dëppale seen tànk ak tànku jamono am na solo al aarifu man arafa bi zamani muqbilan ala shani ku ñu ne xam nga yàlla te xamoo jamono nax nañ la ku xam yàlla xam jamono Sidi Abdul Aziz loolu moo doon kàddu yi si ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm yàlla nañ fi yàgg ñëw yàgg la fi fekk sëñ bi yow li nga liggéeyal kër gi xam nañ ko de bërki bi laay wax xale yi ne leen seen papa Abdou yàgg na yàgg na ba mu nee man dama may sama bopp lislaam waaw ñëpp la sopp ñi bokk ci tariqa bi ñi bokkul ci tariqa bi ñi bokkul ci réew mi ñi bokkul ci réew ci réew mi eh, li nga yenul kër gi xam nañ ko de dang dang guddul dakk te lépp di coono lépp di yen mu war ñépp nga jël sa boss ak bossu ñep do yendal do fananal te yàlla jaral la do yendal do fananal te yàlla jaral la illa ibtigaa wajhi rabbi wala sawfa yarda wala sawfa yarda maqaamul hubbiyya wa maqaamul mahabbati wa maqaamul ridha su fekkon dafa xawul xat te timis ak jot kon ñu waxtaan tuti ngeen xam ban maqam le serign bi toll wallahi alazim waye si ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ma ubinat ما أبينت لك المعالم إلا لتراها بعين من لا يراها فرق عنها رقية من ليس يرضى أن يرى حالة سوى مولاها ويكد بنينا جسك خول دو لنجا جس لب سوكو بغي خول تردي إلا لتراها بعين من لا يراها كن بو فرق عنها رقية من ليس يرضى an yara xaalatan siwa mawlaha li nga li nga romb yëpp soo taxawee xool ko tardé sa mission tardé waaye nit gis na lu mu mënul nettali waaye loo xool daa ko mën a nettali ci baaxu yàlla su fekkee ne am nga takk te am dimbalal yàlla bi ma gën a neexati moo di mi nga waxtaaneek njaboot gi te ci lañu bokk ci wàllu askaar yi ak asraar yi ak awraat yi ubbi nga ci boppu ñu bari ku nekk ngi yore maj ma lawraat waaye wax nga fi tey loo xam ne kenn du ko palamtiku nit yàlla koy wax ak yow te sëriñ Babacar si yow la ko waxal nga baaxee ko njaboot damay wax toujours ne Cheikhul Khalifa doy na sëkk ci ci ci bari na kenn mënu ko peeg waaye ci Ahmad Mazayahu nee na taxaw naa ci buntu Cheikhu na Tijaan di fëgg rek di fëgg rek ba che أنت من خاف محمد ما داياه بل دار الزواياه محمد ما داياه بل دار الزواياه عبيدك عند البابية رهو وليس يعلم إلا أنت من هاو تبارك الله سيدي بابا كسيدي dafa xuus ci cheikh bi xuus xuus ci tariqa bi xuus ci manaqib yeeg cër yeeg karaama yi daraja yi nee na nag ba yegg ci buntu cheikh ne koŋ-koŋ sayidna cheikh ne kooku kana ma ne sas njaam bu ñuy wax abu bakr nee na cheikhuna tijaan yi ne kaccit ubbi nee na ba ma ubbulee man ci abu bakar cheikh sida cheikhuna tijaan yi ubbil ma buntam وليس يعلم ديد من خمتي الا ان تكدل يو شيخ مي اوبي من حاه ديستيناسيون بابا كاس وا باغا لا رو غوتو كدو يو لا اكي كنن لا اكي فو خامني كين دوكو خام كدل يو مي اوب وليس كوكو اسلوب الحصر لا حصر صفه على موسو حصر العلم على السيد ابي بكر موم لا علماء البيان دي واخ صفه اك موصوف اك موصوف اك صفه دا su ko defee kon loolu doy nañu sànq laa koy waxtaane ci ci ci zawiya bi ak ay daaira mbii bii mbaamu njaay àll mooy koomu pittub xale ya man leen xoola cheikhul xalif tim biir mbaamu njaa àll mooy koomu pittub xale ya biir mbaamu njaa àll mooy koomu pittub xalaatir mbaamu ñaa àll mooy koomu feto jërëjëf tabarakallah ma ne leen ndegam ndaw ñi la seexul xalifa wax moo di yéen tey nee na lu ngeen doon wut ci xadra bi làq ngeen ko booleeg la ngeen làqoon daaw ak daaw jéeg ak ziar bi passé waaw moo di koomu pittub xale pitt ba mooy pas-pas yi mooy cofeel gi mooy détermination bi mooy mooy mooy mooy tënku gi ci ndigal waaw ndegam xale yi ñoo mën a am koom moomu mag ñi nag lu ñu am allahuma inna nasaluka tawfiqa wa rashada wa sadaada fi aqwalina wa amalina hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu tabarakallah jërë ngeen jëf waaw ëppoon naa bañ a wax dëgg yàlla ah kon nag moom xanaa li ci des rek ngeen tàllal mu ñaanal leen waaye balaa mu leen ay ñaanal ñu yëge leen gàmmu daayiratu mutamassikin bii ci sama kër papa alxaaji abdul aziz seen gàmmu ñu ngi koy def le vingt-huit mars maanaam samedi jii di ñëw bu dellusee ñu ngi koy ajuma jii di ñëw bu dellusee ñu di ko yëgal mbokki taalibe yépp ak mbokki jullit yi incha allahu waaw iranien ndawit nee journée le premier mais mooy journée daaraam ji maanaam démonstration bi mu daan def waaw tey siiru siidal xaaji malik ñoom xale yi ñoo ko defar di ko soppiku ñu ne ku ko mën a jënd nga jënd ci man jënd naa ci kon nag ma su ko defee kon nag ngeen tàllal xaaji Malick ñaanal leen ngeen toog ñu indi leen ngeen añ ngeen ànd ak jàmm yàlla ba yegg seeni kër yal na leen yàlla sàmm ba ngeen yegg ak jàmm seen maam ji ngeen fekk ci yal na ànd ak yéen ba ngeen àgg ci jàmm lépp sedd tabarakallah te yàlla nañ fi dajewaat déwén te yàlla bu ko kenn manqué yàlla nañ ko fekkewaat nun ñëpp le 5 avril itam xale yi ca Thiès di fédération des jeunes tidiane ñoom itam ñu ngi wax seen conférence nationale bi ñu daan def ñu daañu ko def le 5 avril fañ ko daan ñu ngi koy defee ca buntu ah buntu gare routière foofu lañ koy defee ñu ngi koy yëgal mbokki taalibe yëpp tabaarakallah ak daayir yëpp waaw Sidi Ahmed tim ne na la onze avril ci la gàmmu jag saaw gu faas jag gu Cheikh El Hadj sama mbokki ñooro yi itam mbokki ñooro yi dañu ni dañuy yëgal jullit yëpp ne dañuy teg seen première xeeru jumaa euh, dimanche jii di ñëw maanaam bu gannaaw ëllëg bi bu dellusee ñu ngi koy yëgal Sénégal yépp ndax nee nañu jumaa la joo xam ni daanaka mooy jëkk ci jumaa yi ci Sénégal te Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu moo ci joxoon ndigal mille huit cent naa quatre-vingt-un nag ñu ngi koy yëgal jullit yépp rawatina ñi dëkk Saalum bëgg nañ daal bu bés baa kuy saalum saalum nga dem ñooro ndax mabakat ba mu woote booba kenn wooteegul ba muy woote itam ñi sant seeg mbàkkeeg siiseeg daraameeg ture ñépp a demoon ci jihaatam tabaarakallaahu ñas ak ñépp ñasee nag siyee nag mbàkkeeg ñépp demoon ci jihaatu mabaja sama maam Abdou Xuja Kamara ma nga def ci somb ci jihad ja te dem bëgg naa ko jur tabarakallahu ak ñeneen ak ñeneen ngañ xari mbàkke mi jur maam safetu ñag ma nga ca tata ja ca ñoora kon ngeen xam ni jihaatam ja ñépp Mor Anta Sali radiyallahu anhu moo doon xaadeem moom la joxoon muy atte kon ma ba ba mu wootee ñëpp a demoon wuy ko moo tax ñu ni seen xeeru jumaa ji dañoo bëgg néegu diine yëpp daje fa ña daje woon ca jihaati mabaja ñu ne nag naa leen ko waxal ñu ngi koy yëgal jullit yëpp dimanche ji gannaaw ëllëg ji bu dellusee na jullit yëpp daje ñooro nee na ñu teg seen xeeru jumaa jumaa joo xam ne Cheikh Omar moo jox woon ndigal la maamu ndari samp ko fa ba léegi jumaa joojo moo fa nekk ñu ngi koy yëgal jullit yëpp ngeen baal ñu am <coughs> gàmm ga ci Pikine nit le 12 avril la tabarakallah xam naa ne gàmm yeeg yi de <laughs> bari na lool de xanaa ñu ñaan yàlla jàmm daal ak sutura su ko defee ngeen tàllal na yéen ñëpp xaaji Malik ñaanal leen ngeen yeewu ko kooku ñëwagul le 5 dafa sori waaw ngeen tàllal seen loxo yéen ñëpp xaaji Malik ñaanal leen waaw te sëriñ bi mi ngi ñaan bu kenn jóg Yen ñepp na ngeen tok fi ngeen tok ñu fekk leen fi nangu leen ñaan amin ray leen ta tok fi ngeen tok rek bu kenn jóg ulul qad fi hubbi shaykh tijani على في حب شيء اجعلني يوما قد لحاني في حب شيخ تجاني لما خلى في حب شيخ تجاني فهل على يميني اثنين سهل علي يميني فين في ذاك أم أنا جاني قولوا لي من قد لغاني فيه بشيخ تجاني فليتركن بحبي فليتركن بحبي وليس يعلم شاني قولوا لي من قد لعاني في أبي شيخ تجاني وعدني وحني قاموا دينجراي le 29 mars la gàmmu Dingiraay le 29 mars la ziyaaru kër